daal di koy jëmee ci ka nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck euh, ginnaaw kàddu yëpp yëkkati nag daal di koy jëmee ci ka nga xam ne rek euh, moo di Amadou Ba di wax ne ki nga xam ne rek moo di Amadou Ba daal mën naa gagné élection présidentielle 2024 yi nga xam ne jamono jii moom la ñu dëgmal bu ñu demee la nga xam ne rek moo di premier tour mën naa gagné élection yi nga xam ne jamono jii ña ngi koy daal di waajal lool nag ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck moo ko daal di xamle ka nga xam ne moo di dambo ci mer ba futtu ca yooyu la kàddu di wax na jamono ji daal journaliste yi nga xam ne rek ñoo ànd ak système bi ñoo ca gën a ràññeeku ñaar ñii lan ku ci mel ni ka nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck ma jàmbal Diagne loolu nag di kàddu ka nga xam ne moo di dàmbooj di wax na jamono ji daal Cheikh Yérim Seck moom dafay nekk koo xam dañ koy waxloo muy daal di wax di wax ne Cheikh Yérim Seck moom la wax dara ni ku dëgg dàmbooj cee moo xam ne kàddu yi ni mel di wax ne ki nga xam ne rek moo di Amadou Ba mi nga xam ne mi ngi wax ne dafay gagné premier tour sax moom mënul dem deuxième tour bay gagné ay élection mënul am sax la nga xam ni moo di vingt pour cent kon kookee nan lay gagné ay élection nañu bàyyi seen tappale yi nga xam ne jamono ji ca lañ daal di nekk di wax ni rek ñoom am nañ trois millions sept cent ci ay parrainage loolu nag nekk na loo xam ne nekkul dëgg ku ko dégg xam na loolu mënul nekk moom dàmbooj nag mooy daal di wax ba tey mer ba futtu jëm ci kàddu yi ka nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck yooyee di wax ne sax seen njiit Macky Sall moom mënul am 3 millions 700 ci ay parrainage loolu nag nekkul dégg képp koo xam ne da ko daal di dégg daal xam nga ne lii ay tappale la xam nga ne lii ay caaxaan la loolu Ousmane Sonko rek moo ko mën a am Ousmane Sonko rek moo mën a gañe ay élection premier euh, tour waaye kenn ku dul Sonko mënoo ko am loolu nag dàmboo ci moom la xamle jëm ci Ousmane Sonko di wax ni rek jamono ji daal ñoom nag dañoo tiit euh, jaaxle ñu ëpp ci ñoom ñi nga xam ne rek ñoo fara ci système bi jamono ji daal la ñuy gis rek moo di ak jaaxlek tiit di wax rek loo xam ne xamuñu ko ndax kat ñoom ñoo gën a xam ne sax ñoom la ñuy wax yënuwul maanaa